na réalité yoo xam ne yéen. am na ñu leen ngemb après dinaa si ñëw sama cas ak Pape Mayel vice président des hauts conseillers ma am ci problème ak waa con ay conseillers fii dinaa si ñëw nañu bàyyi vidéo yi mu jeex. xamu leen ko xeex dafa am stratégie yéen nag ñi nga xamante ne ni yéen ñi nga xamante ne ni waa APR ku wax ñu ne ñëwal Sénégal wàccal terrain bi yéen war ngeen rus a wax loolu. parce que ñëwal Sénégal ñëwal ci terrain bi xam ngeen ne bu ngeen ñëwee dañ lay jaay doole tëdd ci kasa bi jaay la doole parce que yéen yor. man jaay doole boobu lan ma def mati nga féetewoo ci waa APR di ma tëgg ay diw woo fi benn autre conseil boo xam ne du ma ko may bës bu nekk HLM fii ma am ak ñoom problème mu sàcc xaalis détourné fii xaalis ma xalaate ko ñu ñu jaar jaar ci Pape Mayel di président haut conseil ngeen may jaay doole. kon la facteur temps dinañuy jugé ñun ñëpp. lu seytaan ne bërët dama naan tekk ba mun a tekk ma ne bërët man jaay doole boobu dama fi ñëw ma gis li ma war a kalaate ma kalaate ko ñu jaay ma doole yow nga dem di rangé wu di woo nit ki di ko wax si man ba si tudd sama grand frère mel ni yoonam yow daf si nekk mati waxoon naa la bu ko woo bàyyi ma ak moom man ak moom ñoo dëkk aselem lu mu yàgg-yàgg il a da man moom daf may soxla te moom def na plan A jàllul mu def plan B jàllul plan bi ñemewu ko ñemewu ko ñemewu ko parce que man maa xaar maa ngi xaar te yow xam nga ni maa ko gën a coupable fop voilà. pouvoir bi parce que yéen a yor pouvoir bi dafa yomb torop dafa yomb torop kon la question est ak diil yi nga xam ne ñu ngi ko nekk di ko préparer ci suuf Macky Sall ak ay nitam ak yeneen i nit yoon mënuñu dugg dudd tur est-ce que dañu wara dem ak Macky Sall élection loolu ma sama question maa ngi leen di yi ñëpp di leen di jégalu lu bare bare bare maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jégalu lu bare bare bare la suite ce sera ce dimanche inshallah rabi mais on a un état mafieux gars yi bu leen fàtte on a un état mafieux.

j'ai rien à cirer man je suis comme ça mais li ma war a wax rek dinaa ko wax man dama fi am problème man ak waa APR bu HLM fii ñaari haut conseil ku góor keeg ku jigéen yi mag Sall teg fii mu am fi ay manifestants ñu nekk fi di xeex ñu jox leen 2 millions pour booyu koñ bi oto yu toj ak veer yi waa APR fii HLM ñaari haut conseil lekk xaalis bi ma am samay source génn def si live ñu wooma ma ma menacé ma ñoom ñëpp ma menacé leen man du delloo menace parce que garage laa dëkk yu ñu xool HLM fi gën a ñàng sama koñ la ma menacé leen ñu yónnu ma ñu woo ma ñoom boole ma ak Pape Pape Mayal Pape bu nekk vice président haut conseil ma ne leen dew ma ñu forcé ba jaxate woo ma ñu forcé mati man mati gis yëg affaire bi woo ma explique ko nu mu demee parce que am ma si intérêt di fen ma ne ko bu leen woo waa ji que personne la l'appelle ma ci dem woo waa yi si suuf li nga ko wax waa ji yëg naa ko bi nga ma woowaatee loo may wax ay sa grand frère bi kër man na ko lu sama yoon ci sama grand frère sama grand frère man bi may nekk Pastef moom moo ni APR man sama yoon musul nekk loolu lañu musul dundee ma ne ko yow lu si ndoxaloo mu ne ma noom moom seexe nee ma sa grand explique ay ma ma raccroché la parce que yëfu seytaane nga doon parce que boo bëggoon nga am connaissance ci moom baa jaxate woo ma na nga dem insister insister ma dem ndaxte kooku man kooku moo nekkoon baraaloo ñi pour waa pour waa pour policiers yi jël si ma baa billaahi quatre heures du matin barki rasulilaay sama bàmmeel laa tiim quatre heures di matin la sam papa daan yewu di tok di ma ñaanal barki rasulullah 4 heures du matin di billahi ti tilahi la sam papa daan tok di ma ñaanal chaque jour 4 heures du matin man mënoo mu duñu duggon sax xoola si néegu jaam billahi ma genn bayila la mais bu ma bee déchu man mënu len ma sànq pap mayal bobu nga ma yobbu won ma dem tok biro may proposer ay truc ma bañ mais ñibu may jox paas man ko doyna amna am dama dugg sañse bu dugg xool nag muy xool samay dàll ba xamatul sax nan la may nuyoo di ma xoolaat moom bi ma demee police ñoom lu ñu doon def enquête pour xam lu nekk sama ginnaaw man loolu laa defoon enquête ba xam lan moo waral man policiers yi sans convocation ñu ñëw sama kër fekk ma sama njaboot jël si ma ndax yow loolu yéen yéen waa APR loolu ngeen ma pour pour coloniser ma man doole ma coloniser cottu ndayam mu leer seen bopp Nenara, naa la loolu coloniser sama ciatu laase laase ma dem tim sama bàmmelu yaay ak sama papa ne len looleen may jure bi de de léegi leexi dé dé dee dee te dinaa yóbbaale ñu bëri dama leen koy wax chaque fois dee dundu la laa yemale dee ak dundu luma ma naree sànq rek dinaa nar ñu bari man kenn duma xokata xoqata kenn du jaay abus de pouvoir fi la dëkk ci dëkk bi né la dama yëk sama lox duma neub fu ma sama turu pap duma neub sama turu yaay du ma nëbb sama jaar-jaar parce que aw ma dara loo xam ne dinaa ko ci ñee wala nit mun ma xas man man gaw ko sama philosophie ak seen bos bokkul chaque jour moo wax leen ko am te ngeen naan may tiital man tëgg seen dëkk sërëx demal demal insisté demal ay jaraaf ay nit yu tekkiwul dara fii loo xam ne mënuñu mobiliser ñetti nit mais APR rek lañu bokk ay Pape Mayam moom nekk si ginnaaw lépp pour man yéen yéen waa appel yéen ngeen sànq ma yéen ngeen sànq ma loolu ngeen bëggoon coloniser ma man du ma waree wax damay wax man kenn mënu ma tere wax du ma tere yàlla rek moo ko mën billaahi yàlla kese moo ko mën mais vous êtes que trait te dinaa si ñëw dinaa si ñëw seen vocal yi ngeen ma doon jëwee yéen ñëpp di jëw boo ko gisee ni muy def bëti day dorogewu Pape Omar lii Pape Omar laa damaa tiit damaa ci groupe bi ñu may jëw et puis Bapulo alias Fatou Ba yow man yow si hôpital yi ngay liggéeyee nettoyer hôpital man Bapulo man j'ai toujours travaillé doo wëree naan yow yaa ma jëndal billet Bapulo man affaire bi daf may daf may jaaxal. te te vocal bi nga wax dama ko yónnee Bah Diakhaté ah yónnee naa leen ko ñoom ñëpp ah mais ñëpp dañ ne kii dafa mën a duur dana yor say ticket vacances man may wut billet pour ñibbi nga ne ma non am naa ay ticket mu nga si jënd billet ma ne la ah waa ok jour bi nga yeewoo dem ci agence bi rek laalal leen la bàyyi ko vocal baa ni nii wala te xuurxaan tekki tubay man nee naa leen munoo ma munoo ma munoo fi fen say fen. te dina ci ñew dama la koy tégal yow man dama la koy tégal vocal bo ak sa fen yi ngay fen dama feebar ba sama baat bi dee dama ma ñëwee fii ba léegi maa ngi a jël ci grippe bi urgence am na de boo mënee def live le plus tôt possible du ñoom. man toog ma de mais yi nga may wax man vraiment man mel ma noonu man du ma bon ma narul ma ko ma narul ma ko def keroog bi may génn dama dagg samay nelaw génn dem agence ba toog. yow yaa ma moo si nekk maa ngi ñibbi maa ngi wut billet nga ne am naa ay ticket de vacances te ticket yi ba léegi jotuma ko yow wóor na la man wóor na ma say ticket de vacances man jotuma ko man dem ba ne la bu ko jënd parce que lii laa doon bañ xon naa leen heureusement ba lekkuma seen xaalis et ngay dem di falsifier ay billet air ay air man Royal Air Maroc laa jël le 2 le 2 laa ñëw la 2 avril nga dem falsifier billet yi te billet yi si ma si gën a metti mooy aller retour nga def retour bi kañ la li ma si gën a metti mooy Royal Air touriste yi nga def man Royal Air Maroc laa jël et baa Ba Omar Diakhaté le frère de Ba Diakhaté nee na imprimerie lay liggéeyee te day fen liggéeyul imprimerie. casquette yi ñu defaral bëgg bàyyi yëpp moom moo ko dóor xaalis bi ngeen tiriande bëgg bàyyi ngeen ne kenn du ko wax parce que menacé ngeen ko dañ koy yóbbu polis bu bañ cooli jóg seen vocal yëpp aani ni seen vocal yëpp instant xam nga toujours dama koy wax toujours dama koy wax euh, ñun suñu sunu sunu suñu problème mooy dañ dul dem sur le terrain di defi ay commentaire parce que moment boobu live boobu di taw euh, moment boobu man bu fekkoon te ni yëg naa ko man bu fekkoon te ni yëg naa ko man juré tout droit juré tout droit ci live boobu ma jéem a defi foofu euh, intervention te c'est ce qu'on doit c'est ce qu'on doit faire dañu war a di di dem parce que xam nga combat bi combat bi ñoom seen yitte instant bi muy bëgg bàyyi muy Pa Oumar ñoom seen yitte mooy instant bi ñu nii yàq komba bi ñoom loolu lañ bëgg yàq combat bi fi mu nii loolu mooy seen yitte xëpp ci cere ji suuf xëpp ci cere ji suuf te waruñu ko waruñu ko waruñu ko nangu ñun ñëpp dañ ko war a bañ. Pape Omar Dia dafa am problème wax dëgg yàlla Pape Omar Dia moom xamul fu muy teg tànkam. moom ay live am sax boo waxee jëm nii ba yàgg mu wax jëm ne finalement doo comprendre lan la bëgg ak lan lay wax ah day parce que n'est pas lucide kii kii kii a yaa ngi tudd am raison <laughs> eh, eh. non moom man pour man daal am na lu am na problème ba Umar boo ko xoolee kii buy wax nga xam ni kii du nit kii lisidul kii lisidul man depuis le début man musuma je vous jure billahi wallahi tallaay musuma seetaan ay laay fam branché wu ci moom lijjantiwu ma daram parce que man jàppewu ma ko nit ba Umar jàppewuma ma ko nit man jàppewu ma ko nit billahi wallahi yooyu ñu ngi koy boole ci benn combat boo xamante ni moom ndeysaan innocent la ci. innocent la ci parce que tey bu demee ba Pa Umar woo ko c'est parce que ngay xam ni kon bëgg bàyyi moo planifié loolu. bëgg bàyyi moo planifié loolu léegi nag ñoom lan lañu ci jublu mooy yàq combat bi ñoom yàqu combat bi parce que instant bi xam nañ ni Sénégal wërngal këpp wërngal këpp. xam nañ ni benn nit moo ci tenir tête waa Pastef benn nit moo ci sonal waa Pastef mooy ba jaxate léegi nag problème bi nag problème bi nag liñ ci ñoom li ñu bëgg a def léegi mooy déstabiliser déstabiliser ba déstabiliser son groupe et son entourage pour nag léegi nag ñu mën a dellu ñoom Pastef. naturel de du nit ku normal de. di wax di yuuxu di yuga ka ki man ne keroog ba mu ne mom tëdd na kaso Suisse tëdd na kaso Italie tëdd na kaso France daa pare ji moom mu làkk de jubo koon wax deug yalla ndax danga nga demone di dole bo ci nare dekk bo dem tëdd fa sa jub des na parce que ñom lu ne ci sen kanam dañ lay rajaxé ñoom xam nañu ne seen accusation yi c'est pas vrai mais ñoom loolu dañ ko tàmm ñoom lool noonu la ñuy exister seen yoon nekku ci waaw Pape Amaro Kane nag ñoom ñu jóge Pastef ñëpp jikko boobu lañu am. dem di envoyé jiwaat naan ko xoolale la di wax bravo. foo mënti bokk mbugalu yàlla yàlla na wàcc sa kaw meru yàlla yàlla na wàcc sa kaw yow seytaane boobu nekk ci biir groupe bi ni yàlla rëbbee woon waa kër yonent yàlla luut rëbbee ko ka nga xamante ni moo nekkoon euh, euh, ci li tax ñu wàccee tabateeda ci abil xabin ci abu laxaat yàlla mbugal yooyu wàcc ci sa kaw yow naa bi nekk ci biir groupe bi nga amul xeex. Omar Diakhaté mii du bàyyi ma fen woo naa ko ñaari yoon ne ko yaw dama bëgg sa diggante kenn bëggul ngeen juboo kenn bëggul même chose kenn bëggul même chose nit ki waaye ko woo di di ko jaxase ak nit chaque fois di jaxase ay nit loolu baaxul boo mënul defar maanul waaye. fa Omar noo def ça va dama feebar ba sama baat bi dee dama grippé. waaw gars yi la envoyé léegi. gis ngeen mooy doo duggee internet di wut billet. nga moom mooy dulloo naan ma rey na Ndeye Khady Ndiaye jiiñ état bi. air Tunisie bi gis nga la 5 ah, man la 2 ñëw voilà. puis man doon defee seen coalition futti ma ba ma set marina ma jël seen bant brochette piqué ma muusal ma ba pare ngeen teg ma war ma lekk yéen ay dëmm ngeen mais ki ma ki ma envoyé vocal nekk seen groupe envoyé ma vocal la ma ñii ñoo lay fexeel kooku na ko na ko abati yaddaa bi loxo bi yàlla di xas ki nekk ab ki nga xamne bayila bàyyi yoronte bi yalla dika xass te te te tuddul yonent bi lolou nga koy yene ta yow da nga doon jëw man dag ma doon jëw yow jëw bi ma doon def yeen seen groupe coalition bob moy lek ma nit genn ne ñi ñoo lay waaj a lekk léegi <laughs> du leen ñu atté àtte te yeen vous êtes des arabisans yeen yeen wa famille <laughs> ba jaxate yéen yéen yéenay ay yàlla yéen ay yàlla ngeen jëw lan la si yàlla wax ak ki nga xam ne dafay dañ doon jëw nit di ko fexeel mu ñëw ni ko ay nit ñoon lay fexeel jël diw lii la si wax diw lii la si wax lii ngeen wax nii keroog yomal xiyaam da ngeen ñu taxaw ak man ngeen waxaat ma ko am na nag ñoo xam ne <laughs> waxoon nan bi mu leen wooyee si suuf xoola ñoom ñëpp dañoo dañoo jébbalu dañoo jébbalu te ku si nekk dama ne la yow danga ma xam nga ne ma déedéet mala lan lañu mësa seet nga ne ma dara mala dama la mësa wo wala dama la mësa wax sama life wala li nga ne ma déedéet man la kon man yow du féké damay nan sangara sa xaalisu bay la jaar nga ne ma déedéet du may tok bon sa xaalis sa nday jox birike nga ma man yow lu lu soyoon ko gëm yalla bu jëk moy manu manu len ci problème bi man ñom bin may tok ñom ba jaxat ba lo activité réplicain yeen bi ngeen may top di mar di mar sama suufu tank chaque guddi ngeen woo ma fii ak fële sonnal ma sonnal ma mais léegi comme may naa leen bës man maa leen may bës man maa leen may bës Bah Diakhaté du nga xamee ba Ousmane Tounkara génn di wax si moom ñoom Akhenaton ñoom jigi man la man maa tax activiste yi xam ko du ko waa Sénégal xamee sax man la sama loxo fii la jaar ñu xam ko te comme comme plein man soxoruma si kenn soxoruma si kenn mais bàyyi leen di yàq der bàyyi leen di jëw nit ñi di fexalaate ñëpp laa yemale man ñëpp laa yemale ku si nekk jàmb laa la yéene Ousmane Tounkara ak Assane Diouf ak Kees Foor ak yéen ñooñoo ak ñu nekk parti oppose képp kuy def live live ak foo mënti bopp doo amee problème personnel ak ci xeex bi bu wóor ma dal la toon je te loolu man la te bañuma kenn ku ma si mere kenn ko ma si mere fi ngeen fi bugu yak deru Ousmane de pap moy bi Pape Diop bi mag bi wax parce que bi leen waxee Pape Diop moy receveur bi yeen problème case fort fort man ak mom xola dañuy rayanté man ak mom dañuy rayanté duñu téléphone sax dañuy ñuy man ak mais ay ticket bis ay ticket xan moo musa burlewul biis Europe yéen ñëpp man damay burle keneen ak keneen day burle ñun ñëpp dañuy burle man damay burle man bañ naa ba sax man moom du ma jënd billet man du affaire bi waaj a daw rek man dugg ne curux laay def ba pare taxaw ci kanam di yëndu contrôleur yi léeg dañuy ñëw sax ma dem làqatu ci duus bi lan la après loolu ngeen jël ko pour rek xas ko parce que fi muy laal moo metti nañu nangul ñëpp la loi des contraintes ñëpp activiste yëpp liveur yëpp dañ lay koy nangul laa loi des contraintes du yéen rek a war a wax wala ñoom rek a war a wax yàgg naa leen ko wax dañoo soxla Ousmane Tounkara assan Diouf Keyes Faure soxla ñoom ambassadeur François Hélène ay ñoom Kouramaki ñëpp lañu soxla ñun ñëpp doomu réew bi nag li ngay wax bu positif mu négatif c'est le même combat foog ngeen gëm loolu am grandeur boobu nangul ñëpp seen combat ñëpp ñëpp mooy dëgg mais Macky Sall la àndal rek ci Pastef la àndal rek soxor dafa war a dee dafa war a torox iñaan loolu moo dul dëgg moo dul yoon te man gëw ma loolu man man li moo tax ma ne leen man a yéen bokkuñu philosophique léegi nag man li ngeen ñu xalaat si man wax naa la ko man sama gat nekku si li ngeen ñu xalaat si man sama nekku si du ma xool ñi ma mere ñi may mere ñan laa war a bañ ñu mere ma barki rastulaay waa Pastef la war a doon man ni ma cëkk ak waa Pastef am ak ñoom vécu bokk ak ñoom yow bokk ak yow bokk ak ñoom jugandoo te bi ma ci gisulee coalition bi te am naa dëgg tey ay dara feeñ na ay dara feeñ na te ñeneen ak ñeneen dineen feeñ moo su musuma gëm coalition bi te dama ko yàgg wax te du ma musa bokk APR dama ko yàgg wax mais dëgg

am ngeen xeex am ngeen xeex am ngeen xeex man maa leen ko wax yéen ñu soog a am xeex da ngeen ñu laaj bëgg bàyyi boobu jege leen laaj leen ko laaj leen ko man man man maay kan te du ma leen waxee dinaa tas seen groupe man expert en tas groupe laa man man dinaa leen tas dama defoon passe des activistes sénégalais tas leen man yéen naa leen tas je vais vous détruire man nag man kese dinaa leen tas te du yàgg. te du yag parce que ñi lay ñi may jox ñi may jox vocal yi ñi may jox vocal ci seen ponkol yi la ñu bokk seen pajo yi de seen ponkol yi la bi presque live bi dina ñew si tour yi ngeen xol di ngeen genn di ngeen katante nday yeen di ngeen sagante nday te le xol lepp ñom ñep lay balance tay yoo di jéem a siisu indi leen affaire yi ma deglu sino yeen ñep ma balancer leen dama ni xaar gaay loolu wax ya salam ya salam di leen bëggee yéen ñëpp di len jox seen ci way wax mo contre mo rek wax bi faj jàngoroy wax li nak jublu ma si woon dara pour leeral rek leeral parce que lamay wax rek ku fi nek di wax naan diw jox nen la xaliss ta yow ñu jox la ta waxo ni man tamit jox nen ma daf ñuy daf ñuy daf ñuy jaaxal te ñun ñu yegg ni yow momu di wax ni gi Marius Sagna encaissé na yag na encaissé te yow nga encaissé e, bu xulo seeg François Hélène Kulose sa ñew fi fii anké sa wa jox la ay moto pop nga dem joxe ñu dig la maison de presse financement ak yoy ñun xamna kon kon xal ci li nga nek da nga bayyi li ngay nga bayyi li ngay xeexee da nga wat ci li nga lan def inviter yeneen opposition yi nga jox leen sen sens bo yëpp nga bayyi gank rek APR APR APR APR Californie moom la ñu ak ba jaxaté bàyyi la nag ñooñu xam nga bàyyi la nag ñooñu yow nee nga journaliste la taman wóor na ma yow xam nga man xam naa yow doo journaliste man t'as jamais bu soo fi def journal bi nga nekkee mati pom kon doo journaliste xam nga ñun lu ñu tax ñu naan ñooy journaliste kon continuer sa li nga daan def li nga daan def jël message bi jàllale ko nit ñi consommer lu ñu woon lu ñu ci war a consommer mais pas ngay farloo dafa ëpp te dafa yàgg wasalaam